L'eau multimédia moi l'un des émission à al Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Bajan, angle Paul Dakar L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau accessoires ci ay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 mbokki amat mbégte lool ñu dajewaat ci suñu jotaay as-salafu ma al-Qur'an ñu koy amee ci kër gi di la maison du Coran waaye ñu nekk di ko defee ci Mbour comme niñ leen ko waxee la maison du Coran au Sénégal fépp ci réew mi lay dem waaye alquran al karim moom moo koy yóbbu di fa def ay jotaay alquran al karim ci jàng ak jàngale ñuy ànd di wettali ko téere borom bi subhanahu wa taala comme ni nga xamante ne la kenn ci asalafa saali waxoon alquranu bustaanul arifin fa aynama xallu minhu xallu fi nuzha nee na alquran al karim mooy jardin wu gaayu yàlla yi ñi xam lanu bëgg ci borom bi subhanahu wa taala alquran mooy seen jardin laaye boo ci jukki rek ñoom ñu ngi ci ab bërëb bu rafet ñu toog fa di wettalikoo alquran al karim kon ñun ñëpp ni ñooy ànd ak la maison du Coran di waxtaane téere borom bi subhanahu wa taala laallakum turhamun di sakku yàlla buur bi subhanahu wa taala mu daal di ñu yërëm ci barket bii la nga xam te moom mooy téere bii ñu nekkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yonent bi daan dundee ak saxaaba yi téere bi nga xamante ne moom mooy alquran al karim ci jàng ak jàngale loole nag mu mate woon góor ñi ak jigéen ñi ndaw ñi ak mag ñi mbokk yi xadis bi nga xamante ne imaam al buxaari moom moo ko nettali ci téereem mu nekk xadisu sahl ibni saad من أتت النبي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وقالت إنها وهبت نفسها لله ولرسوله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ثوبا قال لا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما فاعتل له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن بقى القرآن دند القرآن دفنكم لمتى تجمنوا صحابي رضي الله عنهم, عنهم أجمعين benn bés Sahl ibnu Saadin radiyallahu anhu moom mooy nettali mu ne dafa am soxna su ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne innaha wahabat nafsaha lillahi wa li rasuli mu ne ya rasulallah yow yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam soxna si de mu ne man mii ni ma yàlla bindee ak taar bi ma yàlla jox dama ko bëgg a jaamoo yàlla maanaam sama jëmm ji de jébbal naa ko yàlla ak yonentam may naa ko yàlla ak yonentam yonent yàlla Muhammad su la neexee nga takk ma su la neexee ku la neex nga def ma nga may ma ko su la neex nga def ma jaam xool leen tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imraatun ka haadihi qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam maa li fi nisaai min xaaja mu ne ko wax dëgg fi ma toll de amatuma ave wala soxlatuma tak soxna la ilaha illa allah e bi lay réponse way serigne tay ibrahim ka hadihi jamila alhasna hawra ñëw ba ci yow ne la jembal na la bopam may na la bopam nga ne ko no nga ko yombul de la ilaha illa allah adam imtihanun azim mawqifun sab soxna mu melni ñëw ne la ay wa jembal na la bopam may na la bopam lu la neex defal lu ne waxal غاني كو مالي في النساء من حاجه في فداه ابي وامي يا رسول الله انت اعظم الخلق انت اكبر الخلق انت اشرف الخلق ينتي على محمد مومن لي بن واي دادي جوك تي يا مني زويجني ها يا رسول الله ينتي على محمد تكلمكو ميمكو ينتي على محمد اعطيها جوخكو جوخكو تيان ñu xool way jur yi nga xamante ne ñoom ñooy laaj can xool leen lan la yonent yàlla Muhammad wax mu ne aatiha tawban jox ko yére jox ko mbubb laa ilaha illallah waxul ne jox ko ay million waxul ne jox ko oto mbir mi yonent yàlla Muhammad nee ne aatiha tawba jox ko yére fa qaala rajul waa ji ne laa ajit man aw ma yére bu ma ko mën a jox laa ilaha illallah xool leen yonent yàlla Muhammad ak yërmandeem mu ne aatiha jox ko donte ab jaaro la ab jaaro sumil ab jaaro nga jox ko فاعتل له واجي خول خول خول اموت جارو صاحب موي جوخ سخنا سي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك من القران لن موكال تي القران كون غيس نغا القران لن موكال تي القران نياتي سار موكال waa ji ne ko kada wa kada mokkal naa saar sàngam ak saar sàngam ya rasulallah yonti yàlla muhammad ne ko zawajtukaha bima maaka min alquran may naa la soxna si sa can mooy li nga am ci alquran mbokk yi ndax yonent yàlla Muhammad xeeboon na ni to alquran mooy li ma waxon ana muallimul quran ñu ay kat alquran lan yow mi jàngale alquran yow mi mokkal donte ñaari sar la ci alquran bu ko rusa wax ak doomi ku mu mënti doon ne ko jangale kat alquran la ne ko man donga dara la hakada زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منكو ko may naa la ko ngir lan li nga am ci alquran alkarim mbokk yi lii la yonent كان من تعملوا القرآن الكريم السلف الصالح الصحابة هكذا كانوا يعيشون ويتعايشون مع كتاب الله مع القرآن مع الآيات بكنا نقول سفيان الثوري سفيان الثوري رحمه الله nga xamantene xam xamam gu ya xolal lam waxon mu ne laytani kuntu iqtasartu ala alquran mu ne سما xon sama xam xam sama njang ma yemale ko ci alquran laytani kuntu iktasartu ala alquran ak ka neexoon ma daal di gàttañ lu ci alquran ma daal di tënku ci alquran du ma gëstu leneen du ma xool leneen du ma jéem a xam leneen laa ilaha illa allah ibnu taymiya rahimahu rrahman ibnu taymiya alladi bilkaani takallama fi kulli masala ibnu taymiya mi nga xamante ne daanaka wax na ci masala bu nekk wax na ca xool leen la mu wax mu ne wa nadimtu ala tadii akthari awqaati fi gayri maani alquran moo dafa ne nee ne man rëccu naa li ma sànq lu bëree bëri ci sama temps ci leneen lu dul alquran alkarim mbokk li muy asalafu ma alquran hakada kaanu yaishuuna maa kitaabillah sufyaan ابن عيينة سانك سفيان الثوري لا وخون بيون سفيان ابن عيينة دفا وخون والله لا تبلغوا ثروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله فمن أحب القرآن فقد أحب الله إفقه ما يقال لكم من والله جنة سابرم جنة يلا لا تبلغوا ذروة هذا الأمر kuy sàkku xam-xam doo yegg ca ñoom boxtal ga maanaam doo ca sori kuy wut mbaax mënoo caa yegg kuy wut yàlla mënoo yegg ci yàlla hatta laa yakuna shay'un ahabba ilaykum min allah lu dul ne moo leen moo yàlla ngeen gën a bëgg lu mu mënti nekk maanaam nit faw yàlla gënal la lu mu mënti nekk nga bëgg yàlla ba daal di cay jeex mu ne nag nit ki soo bëggee xam ndax bëgg nga yàlla wala déet xoolal faman ahabba alquran faqad ahabba allah ku bëgg alquran ba nga xam ne foo toll da nga cay jàng doo ca doyal jotaayu alquran doo ca doyal suñ koy waxtaane doo ca doyal soo koy déglu doo ca doyal saa yu la alquran tollee foofu ba nga xam ne li ngay yëg mënoo ko sa expliquer fees na sa xol sa xel sa xëtër faman ahabba alquran faqad ahabba allah ku bëgg alquran bëgg na yàlla sunu borom mu ne leen ifqahu maa yuqaalu lakum xam leen li ma leen di wax xam leen li ma leen di wax كون بوكي لي مون كون سونو جوتايو السلف مع القران تيجي ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطا فمن نقصان صلى الاله على النبي واله ما لبى ملب او تهلل محرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو ملتي ميديا مولين دي ميسين اميسيون السلف مع القران Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires